moy wax ci kàddu wa Dakar kon nak mohammed fo tollu bismillah kon ñoo ngi digal bu baax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 Euh, ziyaare nitu alxuraan te ziyaare nitu euh, buñ ko waxee ci ku mel ne ak Cheikh Ahmadou Cissé gees na ko mën a nangu ngir ak Cheikh Salihu mi yëpp ci jëmmam ji ak Cheikh Mouhamadou Mourtada mi yëpp ci jëmmam ji te ñoo ñaar buñ leen tuddee xel yi dem ci Serigne Touba te moo ne woon inna alladina ila sorosora qad qasadu ziyaarati faaraqu daareen aw zaara kon képp koo xam képp koo xam ne teew nga ci bis bi ngir bokk ci ziyaara bi mën ngaa gëm say bàkkaar fii ci àdduna ak fëri ci àllaaxira te suñu borom tabaraka wa taala dafa amoon euh, lu mu digee inna alladina yatluuna wa aqaama salaata wa aata zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur kon nag ñi nga xamante ni kenn sikkut ci ne seen métier mooy di jàng téere bi di taxawal julli di xomp ci lekk seen poos di ci def ñooñu sama borom nee na seen yaakaar du tas kon nag mbooloo mi nañ jàpp ne jàpp nañ ci lu dëgër loo xam ne bu ñëwee boo gën a jàpp te xam ne lëggéey Serigne Touba la ndax tey jii bu Serigne nekkoon ci jamono mbooloo mi kenn du ko gën a jege Serigne Touba mu kon fu mu geer soowee bu leen gisut dana leen laajte jamono Euh, ñeneen ñi ñu gën a laajte mooy politicien ba wala musicien ba wala mbër ma wala nangam waaye Serigne Touba lam nekkoon te bëggoon ñëpp nekk ca mooy képp kuy yëngu ci alxuraan euh, ku bëgg am wéttal na jël kooku wéttal ndax euh, nañ jàpp itam ne ku ñu def ñu wéttal tamit suñu borom def nañu wéttal ndax ahlul quraan ahlullah sallallahu alayhi wa sallam moo ko defoon te itam dañuy war a bàyyi xel am solo ci ne nit ñi léegi dañuy favoriser li doxal àdduna jàpp ne alxuraan bokku ci te alxuraan mooy njiit la ndax euh, euh, jamono yu njëkkee ci jamono yi alayhi salaatu wasalaam ko toppoon gisoon nañ ne ci alxuraan lañ daan tibbee di def seen i di def seen i di ci doxal te xam nañ ne ñooñu gënoon neex jamono ndax ñoom demoon nañ ba crise amatul seen dëkk yi demoon nañ ne ba ku am soxla da ñëw ci barab sàngam ñu jox la nga dem faj si soxla demoon nañ ba doyal al alal ba nga xam ne ku war a takk soxna te amuloo takkee soxna dañuy dugg ci alal yi baytimaa di jox la nga takk soxna te loolu ñoom ñu ko organisé woon ci alxuraan waaye ba nag a jàpp ne solution bi mënta bàyyi ko ci moom moo tax gis ngeen ko bés bu set ñu ngi génn di lebi ay milliards taxul mbir mi sotti te euh, sallallahu alayhi wa sallam alxuraan ji yàlla jox ko daf ko waxoon ne ko kitaabun anzalnaahu ilayka Euh, tiir la boo xam ne dañ koo wàcc ci yow li tuxrija naasa mina zulumaati ila nuur génne nit ñi ci crise yóbbu leen ci émergence yi nga xam ne moom la ñuy jàmbat te xukuma bi mu ngi def fu mu di wut ay projet ci di tabax ay euh, madarisu francia di tabax ay école yi français fu ne nit lañu war nañ njëkk a def mooy tabax jikko yi laata ñi tabax euh, école yi na al madarisu qabla al masajidi loolu la ambar bi wax te fu ne ni dañ njëkkoon war a def mooy tabax daara yoo xam ne nit yi daara lañ fay teg ñuy defar jikko yi suñ noppee nag soog a jublu ci li jëm ci àdduna bi mooy école francais yi waaye fu ne lañuy def mooy taxawal fu ne ni koñ boo dem am na école français te daara ja bu bëree ba bëri àllarba ñaar dërëmi àllarba lañ leen di jox te euh, bis bu ñu ngi jël lu mat 40 pour cent ci budget euh, éducation bi di ko def ci école français yi di ko def ci université yi te dara dox bis di def euh, ay manifestation ndax alal jooju nga xam ne ñu ngi koy dugal ci université bu ñu jëloon 3 pour cent ba 5 pour cent dugal ko ci daara yi nu croon dinañ gis résultat bi muy jur ndax euh, poste boo dem ñu teg fa jànkatu français bu fa jugee ñu teg fa jànkatu alxuraan dinañ xam ne am na différence bu ndax kii day bàyyi xel boromam mi ko booleeg ñaari malaaka raqiib ak atiid kële nag day bàyyi xel OFNAC lay bàyyi xel wala boog benn surveillance boo xam ne ma koy xool te ñaar ñii mënuñoo bokk liggéey ndax kee bu gisatul waa OFNAC wala gisatul ñi nga xam ne ñoo koy contrôler lu ko neex mën naa def moo tax ñu këpp kees waaye koo xam ne day bàyyi xel raqiib ak atiid te xam ne moom mukk xam ne ñu ngi koy filma filma boo xam ne ëllëg ci kanam boromam moom lañ koy tegal kooku kees bu mu yor dina fexe ba liggéey ci ba bu ëllëgee mu am ci teewu kon ñu sant mbooloo mi nga xamee ni mi ngi jàpp daara ji tey jàppale daara ji di sant Cheikh Ahmadou Cissé mii nga xam ne ak wooye fa ma tax mu nangul ñu leen ndax bu ko neexoon toog ci bu xam di liggéey ak liggéey ndax yàgg na ko def te mu ci am ndam di wax ne képp koo xam ne am nga yéene ci liggéeyal daara daara jaa ngi nii liggéey bi matagul ndax it ak suñu borom tabaaraka wa taala du mat ñu sant gars yi baax yëpp di leen ñaanal yàlla tawfiq wa salaamu aleykum wa rahmatulah wa barakatu